mu nekkoon guddi bu waxtaan saafonte diggante élimaanu joriñ ñi Amadou ak chef coutumier yi Amadou Ba nag tàmbale visitam yi ca Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop moom candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar daal di rek saisir bi l'occasion ngir rek tàllal loxo communauté lébu yi Serigne de Dakar nag di dalal xelam si li ni mel collectivité lébu am na loo xamante ne du ne lépp de waaye li ëpp ci Ndakaaru ku yaatu ndakaaru tey ci ñoom ko ko jaare grand sëriñ candidature bi daal jàppale ni yéen ko moom ci gàtt amul kenn ku mas ubbi campagne jëmale foofu ñu tëggal ndënd kon nag yooyu bu dajee daal jàppal na ñun ci suñu wàll dañ ko dox nga am ci yaakaar bu baax a baax te nag boo faree mbër loo xam lu ne war ngaa fexe ba mu gañe ginnaaw bu mu jógee foofu dafa daal di jubbal ca grande mosquée bu dakaar fi nga xamante ne foofu la jullee timis fii nag mu daal dix ci kanamu Alioune Moussa Samb ak ay taalibeewam que ni dina wëyal réalisation njiitu réew Sénégal président Macky Sall imam bi nag di ko réaffirmer soutien wam ngeen xoolal ma it bi mu amoon bëggoon ko def te yàlla dogalul mu mottali ko ndax am na loo xam ne xëy na ci gouvernement la xëy na am na loo xam ne adduna moo ko andee noonu mën na sax am na loo xam ni xëy na kañ ko dénk nam ko doxale moo tax peut-être njuumte yëpp am ci ñun jàppewuñu la jàmbur dañu la jàpp ne nga ñun ay sénégalais lañu te li nga ñu wax doy nañu sëkk dinañ ci def suñu kem talaayu kàttan ci lii nga wax nii. dofeewu Macky Sall bi daan na ndax képpeew visitam yi foofee ca Sacré Cœur ca Pape Ibrahima Diagne beneen grand sérigne bu ndakaaru bi fii nag ay jaraaf yu bàyyeekoo ci ay village yu bëri ñoo ko daal di gàttandu ci seen kanam nag mu daal di rekk ñëwaat ci lan moo tax mu doxe visitam yi ca biir ndakaaru rawatina ca lébu yi ñoom nag ñu daal ko ñaanal bu baax. ndaxte waroon na ma fekk ci biir Sénégal feneen ma jàpp ni génn Sénégal génn Ndakaaru dem ci région yi may doomu Ndakaaru gisuma waa Ndakaaru defe naa ne erreur lay doon. donte nag ñu nekk kon ñi ñu àndal bokk ñoom lépp ñoom la ñu war a njëkk a diisool doog seeti ñeneen ñi. am nañ ci yow nag yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar ñaanal la nga bañ a am ndog lépp li ngay sàkku ci lu baax yàlla la yàlla dajale ko. moom Amadou Ba nag weetul woon ci délégation am àndoon ak ñenn ci membre gouvernement bi ki ci mel ni Abdou Karim na ministre Seydou Guèye Ndeye Saly Diop Dieng ak ki fi nekkoon jëriñ gi dënk wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr